ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Buukar mbokk yi ak ñun ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV dellusiwaat nañu fii fas yéene ak yéen ci seen émission Xam Sam Réew di émission boo xamante ni mën nañ koo def ci jëmm walla barab walla ab xew-xew ñu dooroon ak yéen nag xew-xew boo xamante ni ñëwoon nañ ci ci ñaari pàcc te mooy xeexub walla xareb Dexële kon dañuy nuyu di ziare bokk yi nga xamante ni fu ñu toll ñu ngi ànd ak nun moo xam ci xëtu facebook bi la wala xëtu xam sam réew tv wala xëtu youtube bi mbokk na ci ñooñu Ale Fall di ku mboor ñor waaye Pape Ndaw moom it di ko xamante ni mboorum réewam daf koo ñor lool fu ñu tollu ñuy rafetlu li ñuy def di ko ànd ak nun donte am na ñu may wax naan ma dañoo bëggoon boo tàmbalee tee rek nga ñëw ci li la tax a jóg waaye da ngay perdre ay trois minutes ci ay nuyoo ak ay ziyaara ma di leen xamal ni pour respect par mes téléspectateurs ñi may seetaan du ma ñëw rek wax li may wax dem ndax nit ki buy wax dafay soxla ñu koy déglu kon ñiy rafetlu li nuy def di ko ànd ak nun ak saa njañse muy ñiy commentaire faw nu ziyaare leen nuyu leen doog tàbbi ci liggéey bi kon sëñ Pam Ndaw dañu lay jébbal yaag sëñ Ale Fall bi jëm ci lépp mboorum wolof waaye cosaanul Sénégal di ay kippaango yoo xamante ni bii ci Facebook bi la nekk bii nekk ci WhatsApp bi waaye ñuy rafetlu li ñuy def ziyaare euh, cosaanu Sénégal dañ koy jébbal rek Euh, jawriñ Amadou Bakhaw Diaw ak Serigne Omar Seck Diaw nekk ca New York kon ginnaaw nuyoo bi ak ziyaara yi dañuy ànd ak yenn kay tey tàbbi ci xare bi walla xeexu déqale waxoon naa leen ni tubaab yi ñoo doon jàmbarloo ak Lat ñoom ñooy bind nun defuñu lu may nettali li nga xamante ni tubaab yi moom lañu bind ab journal la ngi nii ñu doon ko wax le temps mu gënoon ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn muy 1886 foofu itam ma ciy jéggalu ndax ginnaaw bu ma dégluwaatee ñaari épisodes yi jàll su may indi lël bi ci wolof ay njuumte yu doy waar def ci am <laughs> traité euh, kër Amadou Yàlla bi maa ngi dégg fu may wax naan fukki wat ci weeru sàttumbar ci atum junni ak juróom ak juróom-ñaar fukk ak benn te juróom-ñaar fukk la ak juróom-ñeent mel na ni xareb euh, euh, ngol-ngol beet am na fu may wax atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juroom ñett fukk ak ñett te déedéet 1863 la ci weeru décembre wa atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett loolu moom ñi sant loox dañ ma koy jégal yàlla bu di tabaski gi moo euh, taxoon kon fépp foo ci xamante ni dégg ci ñaari épisodes yi jàll mm, ma wax fi loolu rek na ngeen xam ni euh, njuumte la kon wer ginnaaw xex ba wala wer wu manki ñaari fan ab journal la ngi di nu netti le combat de dekkale te yaakaar naa ni seedes noot nag dafa am solo lool journal bi dafay wax ni ñu ngi nuy bind ca Ndar ci Sénégal ci fukk fan ak ñett ci weeru novembre di wax ni sunu njàmbaaru soldat yi tax na ñu bom Kajoor te njàkkunu soldaar yu bari ñeenti espace lañ ñu faatal mooy li ma doon wax ni leen tubaab yi bu ñu leen faatalee téeméer ñu ni ñeent la ndax dégg ngeen journal bi ci tàmbali bi nee na xare bi sonn ñu ci lu bari ñàkkuñu ci lu may ñeenti espace ñeenti soldaar yu ñuul nee nañ ñoom lañu fi ca rey ñu ni nag xare bi bi mu jàllee ki ndar ay euh, ay mbég am na fi ci nit ñu ñuul ak nit ñu weex doon yónnee di jaajëfal ay félicitations gouverneur bi nga xamante ni jëf na jëf ju am solo ci gàttal ñu ni nag Kajoor léegi jël nañu ko annexé nañ ko maanaam Euh, annexé wuñ ko waaye dañ koo séddale def ko juróom mbenni tund léegi Kajoor wéeru na ci kaw France ñu ne nag léegi jàmm ak dal am na ci kaaraangeel yaxantu yi muy sécurité commerce entre Ndar ak Ndakaaru ñu ni nag ci faatu Lat bi nga xamante ni notre ennemi inventerait waxoon naa leen ni duñ ko tudd mukk di wax ci moom lu ñaaw façon yii rek lañuy wax ci sunu sunu noon bu yàgg bi sunu noon bi nu yàgg bañ ñu ni nag sunu noon boobu faatu ak faatoom colonie bi yépp a ci am mbégte ñu ni nag mbégte moom mu nga xamante ni mën nañu wax ne ñoom ñëpp am nañ ko ci faatu Lat Joor ñu néew de ñooy ñi nga xamante ni doon nañu jokkaloo ak moom Lat Joor moomu mu ne nag am nañu faatu Lat Joor gi metti na leen ndax lu ñu doon jokkoo ak moom ñu ñaar fukki at ak juróom a ngi nii Ya, Lat Joor lëjaloon nu lol don nu xex don nu xex ci ay arm, don nu xex ci ay jëfëm momi mom Lat yor momu toroxal nanu yóbbenu musiba mo xamanteni musiba mu doy war la ci ngol-ngol goge nga xamanteni bi bii ak ñett ci suñu soldar labba borom suusalu kaan ni ma koy waxee ku mu neexee ak ku mu naqari jàmbaar la joo xamante ni ñoom tubaab yi ñooy wax duñ ko wooye mukk ab ivrogne duñ ko wooye ab sulaar waaye liñ koy wax rek mooy sunu ennemi bu yàgg boobu dégg nga nee na yóbbe nañu am na ndam ci noonu ca ngol ngol rey sunu téeméeri soldaar ak ñett ci téméri soldat ak ñen fukk yako songi won ci atum jooni ak juroom ñetti téeméer ak juroom ben fukk ak juroom ñent atum 1900 1869 ñu ni gawarug la jor gi faagaagal nañu entièrement sunu escadron espace ba songon ci mexé ak ay yeneeni toroxal et cetera et cetera et cetera ñu ni nak moom moomu ak yëngutoom da don mettre en danger tranquillité boukadior waye waaye mu ndam li day wat ci capitaine Valois moom mi nga xamanteni ci ak génn gu gàtt go xamanteni ni ma nga jeexe ca déqale te jexet la di bom gu ñu bom Lat Joor ba fat ko ñu ne nag loolu mu ngi ko defoon ci ndigalul gouverneur ab division espace la àndal ñu daje ca ndànd takke fa seeni fos war ko ci guddik ñaar fukki fan ak juróom jàpp ci guddik ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ñu bàyyi ko ndànd ci guddi gi dem jàjju ndax nee na jàjju googu dañ ne woon Lat a nga fa nee loolu moo tax ñu topp guddi yi dem jàjj googu nga xamante ni dañ ne a nga fa ne nañu biñ ñu ñëwee jàjj fekk nañ fa ay contingent indigène ay cavalier maanaam fekk nañ fa xare boo xamante ni ay nit ñu ñuul lañu ñii dañoo war ñii di dox ñu di leen wooye ay fantasin xare boobu nag ki leen jiite woon doon seen njiit mooy Demba War Sall Ibra Fatim Sarr ak Samba Law bi buri ñu waaj ànd accompagner la colonne kon xareb Demba War Ibra Fatim Sarr ak Samba Laobé Boury ba ñu leen fekkee euh, jàjj dañoo daal di ànd ak xareb tubaab bi journal bi nee ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ci juróom ñeenti waxtu ci suba nee ci lañuy ñu egg si jàjj nee nañu ñu dégg ni Lat Joor jóge na fa mu nga jëm deqale foofu nga xamante ni dafa am kër nee ci ca suba sa ci ñaari waxtu maanaam ci guddi deux heures du matin nee ci lañu takkaat ngir jëm ci barab boobu nga xamante ni mooy deqale te ñu wax leen ni Lat fa la nekk nee na ñu bi ñu ñëwee ba Thiel seen rej yi seen éclaireur yi ci la ñu leen xamal ni leen Lat Joor nekkoon na ci Limaxa waaye jóge na fi mag a jóg jëm bëj saalum bëgg a dox sunu diggante ak yoonu saxaar gi bàyyi ko ndakaaru jëm ndar nee na ñu daal di wéyal sunu dox jëm si ci teenu deqale mu ne bi ñuy egsi ci teen bi yàkkamti nu lool taxaw ngir wëgg suñuy fas monsieur le temps mooy wax ba léegi sukkandiku ci Valois mu ni suñu fas yooyu nag da fekkoon aw mar na leen lool lool lool lool lool bi ñu ñëwee ci wetu teen bi ci lu ko wër ci toll ci fanweeri mètre ab gànnuuf bu nooy moo suuf sa dafa nooy nga xamni no ngi seen ay garab yu gudd ak am jëmb njëmb boo xamante ni mooy am ñax la moom ab gawar bu war ci aw fas bu duggee ci njëmb bi doo seen bopp ba ñu ni nag barab bi nu tànn ngir taxaw fii wóorut ndax acteur ci biir ñax mi mën naa am waaye nag ñu ni l'endroit était mal choisi waaye nag booba fekk na sunu fos yi mar waaye wóoroon nañu ne nun foofu nu campé wóorut waaye ndagam fos yi dañoo mar ndax nee nañu démb la ñu mujjoon a naan loolu moo tax rek ñu ne nan fi taxaw ngir wëgg fos yi nee na fukki fa bi fukki waxtu tegalee fanweeri simili muy midi moy 30 minutes né nak juróom benn fas yi nga xamanteni bi ñoom la wëgg bi ñuy mandi rek ñu jekki-jekki rek njóor soqi ci suñu kaw ay wal épouvantable yu doy war bayiko ci ci ndey jor gi nee na fas yi dal di daanu li tax ma ni leen tuba bi il faut ñuy bayyi xel ci seeni wax ndorte la nee na ñu ñeenti soldaar la ñu ñak waye fi nee bi ñu soxé njóor ci suñu kaw fas yi ñu doon wëgg te bal yaa ngi ko ci suñu wetu ndeyjoor fas yi daanu na juróom benn nit ci sunuy soldaar dal di faatu kon na ci tàmbali xeex bi ñoom ñoo ni woon ñeent lañ leen reyal te ci tàmbalim xex bi ñu ni fas yi daanu na juróom benni soldaar itam daanu nañu kon li ma leen waxoon ni leen saa bu leen la jor toroxalee la mu leen def dañ koy wàññi mu ngi feeñ ndax journal bi mooy wax di wetti boppam moom moo ni ci tàmbali ba ñeenti espace lañ leen reyal te fii nee na fas yi daanu nañu juróom benn nit maanaam six hommes mi or de combat ci jamono jooju njur lu tàng bal yu metti dit bàyyi ko ci fi nu jàkkaarloo notre front nee na capitaine Valois dal di jëm ci wetug ndeyjoor gi ànd ak xaajub espace yi lieutenant Chauvet moom itam dal di jëm nag ci ñi nekk ci sunu kanam di soqi ay wal Momo mu and ak benen xajub soldaar ba ngir jëm ci ñom nu nit nak nu daldi di fayu soqi ay sox ci ñom ci jëfin wu rafet mu ni la jor ak ñetti témèr ci ay gawaram wala lu wara toll ci ñetti témèr nee ñi ngi dox jëm ci ci nun ci bir njëmb bi te nee na ñoom seenum njoolaay bi ñu sëggee ci biir njëmb bi loolu moo tax ñu mën a raam ci biir ñax mi ñëw ba jigéenu ci wetu teen bi te kenn yëgu leen kenn gisu leen ba tax ñu mën a soqi njóor ci suñ kaw njóor nag mooy ay bal yu baree bari rek ñu ni nag bi fukki waxtu ak benn tegalee ñeent fukki simili ak juróom 11h45 journal bi neena capitaine walwa dal di nay yilif barab bi dal di war aw fos ànd ak lu tollu ci ñaar fukki espace dal di jëm ci kanam neena ñu ñu jakar jàkkaarloo loon ñu ngi daw fenn fu nek ñu jëm fa lolu mom dafa melni ni mom xexu ngol-ngol ñu indi tek xeexub looro ñu indi teg xeexub mexe saa fu ñu waxee rek daldi ni ñooñ la joor ñi ngi daw wet gu nekk ñu jëm fa loolu tam waxoon nañ ko ci looro nee na nag bi pënd bi wëree bi euh, pënd bi wuree le capitaine Valois yëkkati na ay cant ak ay ngërëm ci doxalin wi nga xamante ni turubam yi di soldaaram yi doxale nañ ko mu ni nag ña ca gën a siiw mooy le sous-lieutenant Chauvé ko nga xam ne ab officier bu jàmbaare koo xamante ni bii ñaar fukki fan ak benn ci gannaaw ba ñuy faat sàmbalaw ba xuree jëmbooj feeñoon na ca lool ak maréchal de logis bi ñu doon wax Biscara ak espace européen biñ doon wax Hello ak trompette euh, ak le trompet maanaam koo xamante ni bii trompettiste la ngi doon ko wax Samba Assa ak espace bu ñu doon wax Mamadou Sy ak Alioune Ba nga xamante ni nee na ñoom ñëpp dañoo amoon ay gaañu gaañu waaye téewul ñu ngi doon wéyal di xeex mu nu yéelu moom mu ñu doon wax mu doon wax léegi di espace européen jotoon na juróomi gaañu gaañu juróomi bal daloon na ci yaram waaye teewul mu wéyoon di xeex mu ne nag teewul booba ca ndar ña nga fay wax ni Lat Joor faatuwut nga xamante ni dafa mujj ñu insérer ci journal bi ñoo doon wax moniteur du Sénégal pour xam ne ni Lat Joor faatu na ngir euh, dég-dég boobu doon bruit boobu doon daw nous arrêté ko ndax njàqare amoon na lool bi ñu ni Lat mu li nga xamante ni bii mooy la vérité est que le corps de l'Adior a été reconnu par plusieurs espaces et par des chefs du Cayor qui avaient eu de fréquentes, de fréquentes relations avec lui. ñu ni ba ba ñuy wax ca ndar naan Lat Joor ba ñuy tiit li nga xamante ne bii mooy li nekk am na ay soldaar espace yoo xamante ne xamoon nañu Lat Joor bi ñu ñëwee tiim ko nee nañu kii Lat Joor a waaye amoon na ay kilifay Kajoor yoo xamante ni bii ñoo Lat Joor ñoo àndoon ñoo nekkoon jaxasoo woon nañu kon mu mel ni ñoom euh, Demba rek ak ñoom ibra fatim sar ñom ak samba bi buri kon ñomit ñew nañu xol bari ki kay la jora ki neewu la jora kon ci gatal bobu journal noni le indee xex bi ci tambali ba neewon na ñent lañu délé deele ci tambali xalé bi rek mu ni rey ci ñun juroom ben benen journal la buñ doon wax la croix moom ba journal bee génnee ca suba sa la génn ñaar fukki fan ak juróom-benn eh, ci weeru novembre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn 26 novembre 1886 moom weer wu manqué benn fan ginnaaw xare ba ndax le 27 octobre moo doon xare ba le 26 octobre le 26 novembre le journal bi génn. Mon li titre tiitre gis ko un combat au Sénégal un chef ennemi tué le tiers d'un détachement tué un tiers ci des soldat rey nañu kilifa gii di guider Joor waaye moom it réel-nous un tiers ci sunuy soldat journal de dafa wax ni dépêche bi nga xamante ni je moo ñëw que le fatou la Joor notre ennemi ni ma ko waxoon le rek inventé qui depuis 25 ans ne cesse de nous combattre par tous les moyens. Ce chef redouté, Quand toi, il n'y a pas de Donc, il faut que nous nous dans un côté... de la vie. Si nous avons dit que nous avons dit que nous avons 1870, Euh, le jitu atum 1870 yóbbe nañu musiba ba tey et désastre notamment à ngol-ngol foofu ñàkk nañ fa téeméeri soldat ak fukk téeméeri fu euh, ak ñett ci téeméeri soldat ak ñeent fukk ya ko songoon ak mexe toroxal nu fa rey fa escadron d'Espace mu ni nag moom sunu noon bu mag boobu moom la bëggoon nag tey sunu mbir ak moom jeex nee na loolu moo taxoon capitaine Walwa bàyyi ko ndànd na ko journal ba lay waxe woon ci guddi ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ànd ak ay espace ak con ak contingent nit ñi ñuul ñi ngi waxoon muy Demba Waar jiite woon ko mook Ibra Fatim Sarr ak Samba Law ba buri ca suba sa di ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru octobre la ñu egg si daq deqale fa la ñu fekk ancien damel mu nekkon fi mok ñoñam sunu fas yu mar taxon na ñu ñew fof amoon de njëmb nako nako na journal bi waxe rek baram ba baxul won ngir dal waye amun won pexé ndax sunuy for fas ño maron waye ba tambali wëgg fas neena ci la ay sox jog gis nga journal bi moom neena fas yi ya ñëk naan ñett ci fas ya daanu nañu ak juroom benn nit nako journal ba lay waxoon ñoo doon roulé par à terre mortellement frappé manam juroom benn yooyu bi ñoom la jor soqee ci seen kaw ñu ngi xalangu dal di faatu nee na la jor ak ñooñam foofee la ñu tampaloo ba bi nga xamante ni prix euh, pënd bi wuri na ci la ñu gis ni Lat faatu na nee nag euh, bi muy nettali xeex bi ñooñ Lat Joor na ko journal ba lay waxee nga xam ne ñu ngi jaar ci njëmm bi di ñëw song nañ nu moo xamante ni bii moy jamono yu ñuy wëgg suñu fos une un certain désordre se manifestant dans nos rangs kon gis nga ni li ñu doon jiiñ noonu la Joor ji dañu doon daw journal bi mi ngi wax ni bi ñuy soqi ñor ci suñ kaw nak désordre sauf qui peut kenn ku nekk daw fa nga yaakar nga jëm fa mom journal bi nee lolu amon na ci sunuy ñoñ waye comme mel na ni capitaine Valois ak euh, le lieutenant chevet ñom ñoo fexé ba dajalewaat seen i ñooñ ngir ñu riposte nak avec énergie nana lolu motax xar kanamu xeex bi ko wat mune nak ñi nga xamanteni bi ñoo faatu ci lañu gis ni Lat yor ci la moom sax da moom ñaari doomam la journal ba lay wax gis nga kii ak un de ses la wax waaye nun un ci sunub xare ñoom it faatu nan mu ni nag faatug Lat Joor googu nga xamante ni ca ndorte ca ndar indi na ak tiit ak njaqare bi xamee ni Lat Joor faatu na ndam la mbette la ci noon ndax moom mii kat

am na beneen journal boobu boo ko xoolee xam ni Lat Joor moo yey bañoon raay bi jaar fi ndax journal ba ma ngay wax ni Samba Lawbe daanu na ci Tiwaawoon Lat faatu na instrument maanaam jumtukaayu noteel bi gën a wóor muy raayub saxaar bi jóge na Ndar jaar Kajoor kon ñoom ñoo reconnaître ni euh, raay bi la ñu doon wax Lat Joor ak waa Kajoor ñoom tubaab bi seen intérêt rek a taxoon ndax nee nañu raay bi mooy euh, jumtukaay bi gën a wóor ci ak noteel te loolu feeñ na lañu waxoon Lat Joor kere ba ñuy songi sàmbalaw bi xuree jëmbooj ca Tiwaawoon bu ñu jóge woon Ndar war ay fos dana yeex waaye ci saxaar gi lañu dugg dal di mën a ñëw Tiwaawoon bokk yi kon ci tënk lii moo doon xareb deqale ci li ci tubaab yi bind dana nu dellusiwaat nag ci xaaj bi ci mujj ngir xeex ba na mu demee ka jiite woon yëf ya di capitaine Walwa euh, rapport bi mu bind laata muy jóge déqale ngir leeral nu yëf ya na mu demee woon mooy xaaj bu mujj bi noo ngi leen di sant di leen gërëm di del rek di ziare bokk yi nga xamante ne fu ñu toll rek ñu ngi ànd ak nun docteur Amadou Diop jox nekk ca Belgique di ko safoo li ñuy def euh, sëriñ mbamba Mbeng mi jiite kuréel googu jóg ngir jàppale seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñu ngi koy ziare ak waa États-Unis gépp di ziare sunu sëriñ sunu xarit euh, di xalifa sëriñ Adi Touré di jàmbaari lislam moom itam di sëriñ Abdou Aziz Touré ñu ngi koy nuyu di ko ziare di ziare sëriñ Muntaxa Bachir moom Cheikh Mahamadoul Mourtada ak bokk nga xamante ni ñu ngi safoo seen bi kon noo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waaye français nan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàtta ay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu i cëréewi soose yóbbu gabang boole koog baraama taala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar